la Baye Dame man la Baye Dame ñu koy wax ci ndambu réseau bi xam kaw la yëpp waaw ñu xamee ko suma mbër bi suma doomu suma xarit suma lépp allah loolu rafet na léegi ñu ñëw sa diggante yow ak caat hmm. ndax man ba may xam caat ba ni caat taxawee tey euh, au niveau de Kaolack nekk meilleur lutteur deux mille vingt et un mille vingt deux yow laa gis nga koy indi lan moo indi seen diggante yéen ñaar parce que ci Papa nga commencé hmm. te daa mel na bokku leen koñ yow ak caat dëgg la Macaat xaw nañoo sore mais ñoo bokk jarañ bi. waaw ndax loo ko dalee esto bu marina bi ba jëm marina mbaa bi lépp benn la benn riz bi la. mais su ma xamante ne moom nag làmb moo ñu boole woon ma nag moom. ndax comme réseau bi nam bu réseau boobu ma la waxoon noonu. Euh, ci làmb la ndax dañoo demoon benn làmb amoon suñu koñ làmb kii nii saaku ceeb yi. léegi nag ñu ne dañoo bëggoon làmb comédien boo xam ne day neexal. léegi ñu am sama benn xarit bu ñu boole woon pour ñu commune bëre ci diggante bi sama xarit bi jaar si gaal yi daal léegi nag ñu ne ma dañuy jël beneen booy remplacé la ko ma ne leen man du ma mbër bëri ko wax damay bañ di dem ba hmm. si lañ ma joxee ne man da kaay kii rek ngeen doon affaire comédien mu bëree muy caat mi muy na mu daan ah kon caat bëri ngeen bëri nañ man ak moom waaw waaw ngeen def bëri comédien quoi boobu xanaa caat nekkaguloon mbër non boobu mbër la man xaw ma woon na mbër la sax hmm. waaw ku daan moom moo ma daan moom moo la daan léegi bi ngeen bëree ba pare nan ngeen def ba yéen ñaar link bi vraiment ak kóolite bi parce que li gën a jafe moom la ñu gis yow caat ngeen koy dund moom mooy eh, jàppante ba pare suude confiance waaw comme ni nga ko waxee rek bi ma daanee ci suba gi dama xëy ñëw suñ kër mu seetsi ma bi ma seesee ñu toog waxtaan man ak moom waaw ñu kaf ree mu xamama ne ma mbër champion nga waaw ma lay ñaanal li ni defet bi ni xam nga dafa gën ci yow bamaatee lamb yalla na la yalla may ndam mané mm-hmm. ma léra ko ne ko man duma mbeur quoi mm-hmm. après affaire bi bëtt ko mu ne ma yow du ma mbër ko ndax euh, damay liggéey mais sifru ma bëre lii comédien rek moma ci dugulon affaire yi non mm-hmm. mu ne ma mu waat né mu man na fogo ne yow mbeur nga ma ne ko non du ma mais nak duma bëgg la waaw ah, légui chat kañ nga commencé indi yow ci stade Lamine gay de Kaolack bimu commencé béré wala après nga ko commencé indi waaw chat nak la si sila andé ak mom ndax combat am ak Lac seen koñ fan si club bu Lac bi ñoo tëggoon làmb fee moog Lac Rose ñu bëre. kon yow yow stade maanaam caat yàgg nga ko indi ci terrain vague yi après nga dugal ko biir stade. waaw waaw waaw loolu am na ndax euh, ñun tëggal nañ ko làmb fii ci terrain raa bi. Mhm. moom ak njasam. Mhm. bu okaas. njasam waaw waaw njasam ma koy. njasam nuyu borom baax la borom Baye Fall la ngi noonu. Mhm. waaw. ci la yàlla may ko ndam te boobu man maa ko boole ci làmb jooju ndax làmb jooju ñëw ko doon tëgg ñun waa mhm. waaw mhm. ci Lac Rose daal laa àndee ak moom mhm. bi nga àndee ak euh, ba léegi macha allah yàlla na continuer mu lay jik mais boobu ba léegi dañu gis ne vraiment Thiat mi ngi bëre te buy bëre boo ko gisee physiquement da nga naan Thiat ñi muy bëral ñëpp ñoo ko gën a luur nga indi ko moom ak Lion Dia nga indi ko moom ak Cœur de nga indi ko moom ak euh, euh, nga indi ko aussi également moom ak Cœur nga indiwaat ko aussi également moom ak Sa Thiès yooyu yëpp macha allah yàlla may ko ci ndam ñu bëgg ji jaaf jàngat quoi combat yëpp nan ngeen ko dundee parce que adversaire bu mu ci taxawal ñu ko jox favori waaye su bëree daan lan mooy sekki secret caat seen diggante yeen ñaar parce que gars yi nee nañ yow say mbir dafa garaaw parce que yow yaay indi rëg-rëg yi caat waat na sa naan ne ñaanu yaayam rek lay demee mais yow yaay dugg fépp ci Sénégal ay fuutaak dégg naa jolof ak fépp ngay dem ko wax li mu wax noonu dafa am ñaari ñaari ñaar ñoo xam ne dañuy ànd si seen waajur gërëm la la waaw kon ñu mën naa ne ñu ñaan la ñuy demee ñu xamuñ dara amuñ dara mais wóolute ak xol xol bi ñu ànd ak yéene ji xëy na moo ëpp rek mais li gars yi foog sax amul waaw mais de dafa ndànk gars yi nee nañ cat ay mystique am dafa dangereux dafa graaw parce que booy bëreeg moom boo ko jëlee yaa koy dominer ba jouru làmb ja waaye boo ñëwee gis sa pour nga gis rek problème la gis caar rek problème la non loolu gaa yi ñoo ko wax mbëri ñooy wax loolu rek mais loolu du pare ndax tey fii ki fi jox avance da ngay jël avance bi am yaqin dëgg ne yow da ngaa war a daan mbër mi ngay dajeel jël avance bi ànd ak say mbokk caat loolu la def rek day jël avance bi ànd ak ay mbokkam rek dëgg la nag làmb ak ñaan ñoo ànd ndax moom li mu war a liggéey mooy entraînement ñu des ñu war a dugg ku mel ni ay ñoom buuba saaxo yeneen gars yi baadaam lañ gis mais baadaam doxul dara man du ma dara ci caat ah dara nga ci quoi parce que saa yu ñu gisee caat gis la mhm. te it aussi saa yu caat di bëre doon nangu ko ko jege foofu moom da ngay complètement beneen bàyyi daam la ñuy gis bu bokkut ak bàyyi daam lan moo a loolu waaw loolu moom bëgg la ak xër gu ëpp rek ndax dafa am foo xam dafa toll dama ko toll ci moom ndax li olof naan koo xamul na nga koy def nam la dafa tax mhm. ndax naa ne man la mujjee xam mhm. waaw am na ko gën a jege ni man mais dafa mujj jël léppam lépp caat man man naa ne man la ndax du def lu ma yëgul du wax lu ma yëgul te lu muy def balaa def dara dina ma laaj ba ma jox ko sama apport man ak caat Gambie man ak caat Mbuur man ak caat Dakar caat fu ma nekk mu fekk moom fa man Baye Dame te fu mu nekk ma fekk ko kon loolu yàlla moo ko def ñu bokk Serigne Touba tamit teg si muy ku gore bu neex a àndal bi ngeen jëlee Sa Thiès euh, ma bëgg ngeen ñëwaat ci combat bi bi nga ko jëlee bi mu ñëwee ba toog lan nga ko njëkk wax parce que combat bu dangereux la te combat boobu noonu vraiment kaw yëpp mën nañoo ne à 90% sa Thiès la ñu joxoon favori non seulement dans sa mais dañu jàppoon ne da koy duma daan ko. waaw loolu am mais combat bi dama la ciy wax lu tuut loo xam ne nii ma fàttali la ci ginnaaw. Hmm. boo seetloo caat bi mu bëree euh, nu mu tuddati. Hmm, Pakala bu Busaan. Pakala bu Busaan dafay jugee dem Gambie. Hmm. ñu ne caat dafa gàddaay. nga invité teguñ ci ay fan nga invité saakees boobu dafa daan sax xaw ma kan la daanati estade mhm. nga invité ko yow sa rajo waaw mu ne la nga ne ngay wax ak moom ci biir wax di ko laaj di ko félicité ba dem ba ci biir nga ne ko noo def ak caat bi leona yéen ñaar gis naa seen taay di mhm. mu wax la am benn wax bu mu la wax boobu caat sa yëgu man maa ko yëg mhm. ndax maa ngi lay déglu mu ne man jimaan loolu du làmb man su ma tëddoon di nelaw dëpp caat bi leona mënumaa dëpperti hmm? wax boobu ne man dafa ma tuusi woon man bàyyi daam waaw looloo waral ma ne leen làmb ji làmb caat la sama làmb la kon kon bu ma bu baax Sa Thiès yaa ko doon paré ci lumu mu ndax amna wax bu mu wax bo xamné daf léna bouleversé non paré bi moy comme ñun xeeb bi ñu ñuy la rek mhm. mais paré wu moko ci dara mhm. ndax ñun lamb ñun loolu lañ koy dundé lamb espoir la ñom ñaar duñ ay non ay doomu nday lañu ca euh, Sa Thiès dafa bok ci lamb Kaolack ndax keroog séance dafa def ak bu rafet bo xamné man dafa ma touché jël loxom nuy caat ci préparation lamb ñuy waxati nga nit daan la nga yëkkati ko félicité ko xaaroo sax mu ñëw kooku maanaam bokk ci làmb ak doon sportif mënu koo weesu te caat euh, li muy wax ci saakees làmb Kaolack la bokk te làmb Kaolack dañ koo soxla ku mel ni caat lagros saakees ak ñoom usine doole ñëpp Kaolack da leen soxla kon ñi ne si ginnaaw ku mel ni man ni xoolaat ni ñuy àndee suñu mbëri moo gën ñu leen di buux ci leen loo xam ne ni bokkul ci ñoom ndax li ñu koy dugal nii saakees il est meilleur la mën naa daan ku ne bu daanoon caat dañ koy nangul kon bu ko caat daanee da koy nangu te ogas génnee ak ñun benn lañ ndax man damay supporter ca sa saa kees suy bëri dama koy supporter lu ne laa ci daj di supporter bu ko xamee bu ko xamul keneen ak keneen noonu te làmb ji dafa am lu ci laxasu lu bëri muy sëñ Babacar Mbacke mu Kabaro dañ koy sant en passage di ko ci sant di ko gërëm jaxaanaay rek la ci tëddee ñu gis la aussi également bu buy caat dugg si maanaam yenn dëbb-dëbb yi yow yaa koy yor yaay nekk ak ñoom seen yooyu <laughs> loolu ku la ko sas ku nekk vraiment amna na ci yow confiance bu wér fan ngeen di dugg ba daan gars yi wax leen gars yi secret bi waa kaw la yëg ko waaw loolu dama ci ci côté mystique bi dama ci santaat yàlla bu baax di nuyu di nuyu di nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu leen tàllal suñu loxo di leen ñaan di ci nuyu waa kër mbokk yi su ma mbokk su xarit su doomu ndey su may doom sama kër di jaay sama kër bàjjan noonu laay nuyoo waa Touba yëpp di nuyu waa Sibassor di nuyu góor gu ci ruq bi nag di ko di góor gi ci ruq bi góor gi ci ruq bi maa ngi ko jox ñaari loxo waaw di ko nuyu waat di ko waxaat foofu rek la di waa saa Touba di nuyu ñëpp daal di nuyu Baye Jim Njóobeen amuñ seen pay ñun jimaan Gàmbi fépp Casamance ñëpp ñuy ñaanal waaw ñëpp ñuy ñaanal mënuñ la wax ne fii lañu ñëpp la ñu ñaanal jolof fu ne foo dem ñu ñaanal sant yàlla bu baax di gërëm waa Touba bu baax jërëjëf tàggatoo waaw di la remercier yow Jimaan di nuyu suma apprenti yi nga xam ne ni ñoom laa am. depuis ñuy xale ba léegi di leen sant di leen gërëm. di sant suñu waajur yi di sant tamit suñu jabar yi. ndax laamu dafa metti tey caat am laamu bàyyi daam bàyyi yitteem yi ku ci mel ni buuba saaxo fu ne la ñuy dugg. xam nga ñu ñuy comprendre ay minuit ay trois heures matin la ñuy dugg si waat Kaolack yooyu yëpp suñuy soxna yi dañuy comprendre kon mënuñ leen a fay ñu ngi leen di ñaanal li ñu bëgg seen sëy bi ñoo ko xam yàlla leen ko yàlla defal di sant Baye Mbaye jantal Mara di sant grand pape suñu papa suñu xarit ama junior père ajuma amuñ fayam di sant ñëpp di sant ñoom euh, sita mbër yeeg mbëru ñoom pëtee gars yëpp ku lim juum del teew ndax ñëpp jàpp nañ si lamb ji ndax lamb ji mënoon nañu suñu lamb la jalañ yëpp jalañ yëpp cat ba Euh, Marina ba ñëpp a jàpp ci làmb ji te caat caatu Kaolack la caatu gox la caatu réew mi la. Mm. lu suñ namu ñun du Kaolack. Dakar dem di indi ndam li fa tey nekkoon tey ñu indiwaat ko fi loolu lañ mooy suñu rêve ñun. Mm. te gars yi nañ jël caat. ndax ah, ci kanamee day gën a metti rek jimaa ku ko jël day gën a metti waxoon naa leen ko waxaan naa leen ko mm. Baye Lamine Gueye bii balaa ñu ñu génn lu set lu wetti la wax ci loolu waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di mm. waxaan ne ñu ngi tàllal ñëpp doomu Kaolack yeeg ñëpp autorité yeeg ñëpp ñu ngi leen di tàllal loxo di leen wax ñu jàppale ñu ñu ngi tàllal suñu loxo waaw di ñaan ñëpp jàmm di ñaan ci réew mi jàmm di ñaanal ñëpp jàmm agression bi yàlla na fi jeex mm. mbënn mi ndox mi yàlla na doon jàmm kenn bañ cee loru ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amiin amiin ana xar me gramme bu ban nga ci jël yow waaw ah xam nga garaam ñaar yëpp la yëkkati jox ma ci kanamu nit ñi dëgg la ma sant di ko gërëm ndeysaan ndax ah, suma rakk la wallaahi azim jimaan ko da doon ba mbabat biij ba ñu koy wax gaam yi ci buntu dex gi wallaahi bu dee écran ak ak téléphone barke Seydina ma day ñëw ba ci mën na ma am yëre sax gañe na ko ñëw jox ma ko ko aw ma fay man maa ko defee moom desalutuma dara jërëjëf gars yi bi bi su caar la ñuy gis mais gisuguñ moom sama diggante ak moom te bañ dem Dakar